ma yonent bi sallallahu alayhi wa kan moo xam ndeyam ak baayam kan moo xam ndeyam ak baayam ñun suñu yoon daane ci ndey baayam ak ak ak baay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que damaa dégg benn nit may wax ak moom benn mu naan ma yonent bi moo nu gën ndey ak baay yow la gën ndey ak baay man sama ndey ak sama baay ñoo gën ñoo gën ndey ak baay yonent bi parce que man sama ndey ak sama baay ci l'islam lañ judd ndeyam ak baayam juddu wuñ deewuñ ci l'islam mm. c'est Sénégal ñoo